wala di xayri saati al akdaaru wa tantaxi li busaari al akdaaru salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah suñu Cheikh day dal borom ndaam tubaab fakar la koy sàmb loolu ñu ngi lay ziyaare baax borom baax daal yàlla yàlla sama borom yàlla nangul lu booleen ziyaar di bëgg ci jot la nag tey alhamdulilah alhamdulilah. ci waxtaan wi ñuy waxtaanee sa maam ji nga xam ni séddu nga ci waaye sëñ Tuubaa mi defar sa maam yi séddu na la cër. alhamdulilah alhamdulilah. loo loo ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. jërëjëf jërëjëf a jërëjëf Samb. <laughs> loo bismillah. jërëjëf maa ngi nuyu mbokki taalibe yi ci jotaay bi yëpp. loo alhamdulilah loo. ñu jiital nuyoo bi nag fi ngeen wàcce kàddu gi rek. muy Serigne Mountakha moom nga xam ne. wallaay ndeysaan. waaw moom it eh, day sunu kilifa di lépp nag. Mhm. te eh, njabootu euh, soxna Isa gi noo xam ne ndax euh, loo def ci Cheikh Massamba def ko ci kër gi def nga ko ci ñëpp. dëgg la. di sant jotaay bi ngeen toog foofu. Mm-hmm. tàmbale ci sama mbokk mu toog di Cheikh Abdou Khadir moomu nga xam ne tubaar fa kàll. ndeysaan ndeysaan tey foofu mu toog sagal ñëpp te jotaay bi matale na. lay ndeysaan mboolem askan weeg mbokk yeeg. toog na ko mu mat sëkk sëkk sëkk di ko ziar bu baax. lay ñu ngi la koy delloo di nuyu nag di ziar sama day sama xarit lool di ñu wëlërante ci lu bare bari ñuy faral di ci xasida yi di ko teg ci yoon ak njàngin wu sell yu ñu koy jàng nag ndeysaan di la sant nag yow lool nag ci bu baax bi nga xamee ne cër bu ne am na nag wallaay waaye nag jël lu mel ni bis ci euh, cër bi jox ko soxna soxna Issa ndeysaan noonu la ciy sant bu baax jërëjëf loo di nuy nag Modou Mamoun moom nga xam ne nag lépp la ci man doom la lépp la wallaay loo wallaay loo ma yar ko ci samay loxo <laughs> uh-huh. mu noonu yi ñu ko limee rek noonu yi la demee. wallaay loo wallaay loo noonu yi Cheikh Massamba rakkam yooyu doy la woon kon noon yi rek la ma def. wallaay loo. ñoo bokk lépp wëlbati ko mu jaay lépp njural géeg lépp nag jëndee ko taalibe yi. wallaay loo wallaay loo. di sant it sunu jëwriñ bi nga xam ne matt na ko muy sëriñ Cheikh moom sañ Mahmadan. su mhm. ma ko nuyoo nag nuyu naa mboolem kër sëñ Mahmadan ak mboolem penc yi nga xam ne aju na ci soxna Issa Dieye yëpp. Mhm. di leen sant bu baax a baax a baax ndax defe naa ne lii bariwul sax ñu dégg ma ci. déedéet yu mel ci jotaay yi. déedéet bariwul de. waaye lu mel ni jotaay yi nga ciy def yëpp xam nga ne benn du ma ci rëcc ñaare ndax dinaa koy topp. wallaay wallaay loolu. xam-xam bi ci juddoo ak cosaan li ak dekkal li nga xam ne daf koy war a dekkali. Mm-hmm. kon nag maa ngi sant yi di ziar nag ñi nga xam ne samay sang lañ di samay kilifa ci so na Isa ñi ma ko bokkal ñëpp dañuy samay sang. Mm-hmm. maa ngi ziar ñëpp nag. wallaay loolu. di ñaanal yàlla yi sunu kilifa ji fi nekk muy Serigne Moustapha am Serigne Massamba mhm. ak Serigne dàmbale moom euh, Serigne Modou Isa ak Serigne Moustapha ak Serigne Modou Magui sama mag mhm. ngeen di nag koo xam ne dundam gépp njariñ la woon mhm. ndax njariñ la moom mënta weesu moom soxna si ci dundam euh, da koo dund dundin woo xam ne ñi ngeen ko waxee léegi taalibe la woon boo xam ne kenn njëkku ko ci sëriñ bi ci wàllu taalibe ndax lamu waccion ci ndigal yombul ko ko wacc ndax amul benn ku ñuy tuddee première dame tey nga wacc sa première dame wala sa palais mhm. di dem ci dem ci daara ci jàng mhm. moom loolu la defoon mhm, wàcc taaxi la yor ya wàcc wurusoo wàcc lépp ci ndigalal sëriñ tubaa sëriñ bi dugal ko fi nga xam ne wala la njariñal àddina nekk ak loolu àllaaxira loolu yi dafa yombatul te loolu mooy ginnaawal àddina mi nga xam ne dafa bëriwul njëriñ te jublu sa borom waaye nag nekk taalibi nag mooy indi loolu mhm. loolu yi nag ci la nekk nag moom jël dundam gépp nag mhm. defoon ko ci ci yàlla suñu borom sëriñ mhm. bi naaw lañ ko wutal mët a wutal lu dul di ko tegloo bët ci mariama bu kawe sayyidatina mariama la ko mës di teral tegal bët loolu yi nag sax ci loolu sax ci ne nag doonub jullit ab jullit war a mel waaye war a doon na ku dëggal nit ku dëggu na muy war a na war a mën a mel mhm. waaye doo doonoon ab muñkat nit ku muñ war a mën a mel mhm. waaye nag doo ku koo xam ne dangay ngay muñ ndax muñ ay xeet la mhm. am na muñ gi nga xam ne sabru la waaye nag am na muñu saa imii na mooy ni alquran indi innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat wal xaasimina wal xaaminat wal faasiqina wal faasiqat wal mutasaddixina musaddaqi was saimina saa imaat loolu yi nga xam ne ci la nekkoon ba ak ci xaafisina furuujuhum wa xaafizaati zaakirina laahi kasirat wa zaakirat ahba llaahu lahum maxfiratan ajran aziiman yàlla la ko yàlla sans borom bokk defal. amiin loolu nag ci la soxna si nekkoon. ci ci muñ googu dëggal googu tax mu àndoon ak sëriñ bi ni mu àndee woon ak moom. jël njabootam gi nag tegoon leen ci loolee. kon nag ñun njabootu soxna itam gépp ñun alali Serigne tubaa rek lañ mën a doon. wallaahi wallaahi wallaahi loo. waaw alali Serigne bi rek lañ mën ay taalibe lañ mën a doon. Mhm. ndax lii nuy nekkee sunu sunu sunu wéyjur woowu moo ko jëkk a nekkee. Mhm. muy ak taalibe ak wéyi ndigal ak topp ndigal noonu yi la toppee woon Serigne Touba. Mhm. loolu yi ki sëñ Mamoun moomu wax léegi. ne li ko ko may nag mooy ngërëm lu mag la mu jëree woon ci Serigne Mor ngërëm loolu yi nag mu indi loolu yi lépp tey ci njabootam. Mhm. ndax ku ne xam ne ne ngërëm amul lu mu mënut waaye ci lool yi nag ci la nekkoon kon nag lool yi ah nun waruloo def rek lu dul doon i taalibe parce que nag di wéyee ndigal ndax lii nga xam ne barki démb kër sëñ Massamba jébbal nañ ko cib liggéey. Mhm. sëriñ bi def sëñ Massamba loolu lii rek la jëlee ci soxna si moom la ca nàmp. Mhm. muy jikko ju tedd jooji waaye mm-hmm. wëlbatiku nag laxasu nag doonu taalib ji liggéey mm-hmm. kon loolu yi rek mm-hmm. ñun mooy suñu wàll wallaay ndeysaan jër parce que ne doon yi taalibe ndax sax ci ndigal li nag topp liggéey bi rek ni mu waree li ngeen ci wax lépp rek lu ci nekk rek dégg nañ ko waaye lu ci nekk mel na na fam war mel nit mënu cee dindi dara wallaay loolu ah alhamdulilah dara lu luñ ciy leeralaat loola sax amu ca mhm. ndax wax ji mel na ni war a mel mhm. kon nag maa ngi leen di sant bu baax a baax jërëjëf la rawatina nag yow bi nga xam ne <laughs> da ngaa jiite jotaay boobu wallaay ndeysaan serviteur bu toll nii nag soxna Issa ndeysaan jërëjëf loolu moom defe naa ne man mi nga xam ne maa gën a ñàkk solo ci kër gi wallaay ndeysaan <laughs> kooku boo ko séddee rek wallaay loo cër boobu kon mel na ni defal ko ko ñëpp waaye maa ci rawati wallaay loo wallaay loo waaw maa ci rawati wallaay loo soxna si moom Eh, dañu koy dund. ah dëgg la waaw dañu koy dund. wallaay loolu biiru njaboot. wallaay loolu kër. wallaay loolu ndax loolu la ñu juddu fekk ko fi. dëgg la loolu dëgg la noonu yi ko eh, kii waxee léegi. foo ci dem ci kër yi rek njóoba yeeg maam isa yeeg. maam soxna yeeg yooyu yëpp foo ci dem ci njaboot gi rek. am am na fa kon loolu yi. ndeysaan lañu lañu lañu lañu fekk ci kër soxna isa. wallaay loolu mooy njàngale bi. ndeysaan Seex Masamba. Mhm. gis ngeen ko. bi mu tuddee woon waajur bi soxna Isa. waa Fakkan la. ndeysaan. <laughs> ñaan yàlla suuf si ci kawam mu doonoon man mii loo amin loo kon nag ñoo ngi siyaar njabootam ci fi bàyyi yëpp. jërëjëf loo waaye nag di nuyu mbokk yëpp nag di siyaar ñëpp. ndeysaan ak sama mag la la sama xarit la lool. ak njabootam beeg yëpp. wallaay ndeysaan. di sant bu baax a baax a baax. maamul moom it ñu koy sant bu baax. ndeysaan ndeysaan la xarit la ci man am nay taxawaay te tubaab ko kànd ndeysaan war a xam xam na ko li mu war a jàng jàng na ko ndeysaan ndax fii la ko ci nekkee woon mu jaar fi mu war a jaar ndeysaan moom nag alal li soxna isa rek la mën a doon ndeysaan ndax dafa juddu fekk loolu bàyyeen mm-hmm. jeex tàkk ci kër sëriñ Masamba ak sëriñ Mourou Fati Xari ndeysaan ba moom moom mu gënee àddina mm-hmm. nu tuddee ko sëriñ Modou Mamou muy sëriñ Modou Fati Xari ndax sëriñ Modou Fati Xari tax boo demee Mouhamadou Moustapha dëgg dëgg mooy tur wax waaye am na tur wu ñuy ak la ñuy déclaré ci këyit Moustapha la ñu tudd waaye danoo déclaré ne maamu mag bi nag wooyee ko Modou Faty Sall nag maa ngi ziar bu baax a baax a baax. ndeysaan di nuyuwaat Serigne Abdou Khadir moomu. ndeysaan di ko sant bu baax a baax. ndeysaan ndeysaan ginnaaw moom bi mu toogee foofu rek toogal na fi ñu ko te a wallaay loo wallaay loo fàttali na ko sëkk sëkk. wallaay loo ak koy ziar bu baax a baax. jërëjëf dëgg la loolu. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf waaleykum salaam jërëjëf.